si wala ñoom li ñu bëgg yéen ngeen koy relier ñun duñ leen ci topp mooy chaque jour rek kenn xëy activé benn nga topp di topp hmm. jot bi def naa ñun amuñu jot bi te lool yëpp pour nous distraire la ñun man amu jotam ah, amu jotam man Macky Sall mooy sama interlocuteur Macky Sall dong mooy sama interlocuteur fi mu toll nii hmm. dans vingt jours campagne électorale commencé dans trop suba ñu notifié dans trois jours ñu ñu def lan euh, liste provisoire euh, le vingt ñu def liste définitive et dans vingt jours campagne électorale commencé man xam naa fi ma jëm xam naa lii sama yitte benn interlocuteur la am Sénégal mi ngi tudd Macky Sall. la bokk da ça veut que ñu ngi ci yoon bu baax rek suñu newaloon ci yoon bu baax kenn duñu tudd kon sant yàlla rek te te concentré wu ci objectif bi amuñu sax seen jot man daal Macky Sall mooy sama interlocuteur. moom mooy moom mooy candidat mooy candidat. Mm-hmm. invité invité naa ko a un débat. Euh, je crois que fi mu ne nii euh, taluma euh, suq yoog ñuy suq yeeg bojo bojo yi ñuy yónni ñuy ñuy waxante. mënu maa tere jàll ma damaa damaa matal charte yëpp alhamdulilah. Mm-hmm. sama militant dañoo dal ñoom kay amuñu problème xanaa yow yaa <laughs> ñoo gën a dal ci Sénégal. waaw